الورى تدرعوا لأوليائك من ليصفى إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا إليك يا رب الورى يا ربنا ya rabbana ya rabbana fa kun lana wa jih lana lutfan wa amnan ya aat yaa man taala lam yakun kufan aat aousbillah mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim eh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen jaajëfal eh, noonu lañu ñaanalee sëñ Muntaxa Basiir di ñaan suñu borom yàggal ko fii ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maamam ja yàlla may ko kattan ak dara ju ko yeggalee te ñoo ngi fii ci dëkk bu sell bi Tundoo di Mbàkke ñu gën koo xam ci husnul muhab ñuy fàttaliku jëmm ju sell jëmm joo xamante ni kenn dootu ko fàtte ci ay jëfam ci ay meloom teel dem gi rek la jooy ci moo sëñ Ahmad Laat ñu dippee ko sëñ Ahmad Tindodi moom sëriñ Laat moom sëriñ Baara moom sëriñ Touba moom la ñuy fàttaliku tey fii ci dëkk bu sell bi Tindodi ñu ànd kook ay talibe ànd kook ay doomam ànd kook taawam bii di Serigne Moustapha kon bu ko defee ñu fas yéene leen a toppal lépp loo xamante ni ruuse ne fi ci ay kàddu moo xam euh, ki nga xamante ni moo fi toog sëriñ Serigne Ahmala di Serigne Moustapha ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi kattanal ko mu sut waa juróom wa fan ñuy ñaanal borom dëkk bii di Serigne Cheikh suñu borom yàggal ko fi ñi ngi ñaanal tamit suñu Cheikh Bara Laat bi nga xamante ne nii ginnaaw suñu ma Laat dara ñaawut ndax taxawu na ay doomam taxawu njaboot gi taxawu ay magam taxawu ay rakkam ndaxte daan naa dégg olof Ndiaye su ndaw teelee dem rek ginnaawam dina ñaaw waaye jëmm ji sëñ seex Bara Laat euh, di magu sëñ Axmalaat rafetal na ginnaaw ax malaat ba mu rafet ndax téye na njaboot gi teeta leen mën nañ ne njaboot gi xamuñu kenn ku di sëñ Cheikh Bara Laat ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi. feeñal fi sëriñ Baara Mbakke moo baax. ma feeñal fi baara mbakke moo baax lamiin doomi lamiin law boroomi xar baax ma feeñal fi baara mbakke moo baax lamiin doomi lamiin law boroomi xar baax xawaarix ya mu lamboo sewal na doktoor lu waay wopp bu tëflee nga ba def buur borom baati na koy xam jël na diiwaan ndëggoom baak taxawaayam ba doy na biri jiley hiri xaabar jaali jàlla kama jaasama daaral xuloomi jàlla yéena baay bale noon cas di jéemaaw daam sëriñ bee ni ko toogal mu ñël dem saam ni Cheikh Bamba misaalam du wàllu yu mbaam bu ñuy sëf sa doomam di xëcc muy keroog bis ba mu feeñee ci daaru duniyaa ka daam xettali xeetam i xayri suniyaa kajoor ak bawal ak jolof njaayi mi ngeen jébbalu jébbal ko seeni gannaayi bi aw saafi kamaalin la xattaalla aniw saafi siréerin la xattaxalla bu leen diingati jikko naa wamul yoo sëñ Blaat ko jur sëñ Blaat sëñ Baara jur sëñ Baara sëñ Tuubaa ko jur sëñ Axma soxna suñuy wax soxna Isa Saw ca Njogomaay mooy waajuramu góor moo ak sëñ Cheikh Baara Laat moom sëñ Abdu Laat ak ku ñuy wax seex Mbacke Gaynde faat ma ñoo bokk ndey ak baay <coughs> ñoom nag ah, seen baay lañu seen baay moom kenn waxu ko waaye seen ndey laa lay wax tuuti ci li nga xam ne aw nekkinam doy na ci ndam ci kenn ku nekk mooy seen ndey dund gi bariwut waaye dund gi bari na ndax jàpp naa ne soxna sa dund lu ëpp ñeent fukki ak ñaar ñeent fukki at ñett rombut loolu waaye liggéey na ci biir kër gi liggéey boo xam ne ah, dundees na téeméer te liggéeyoo ko ndax danaa def ay témoignages yu gàtt yoo xam ne suñu laata wax ma dégg ci seen wajuru jigéen yooyu muy soxna si saw mas naa dégg wax ni soxna si saw day doomam day dimbalee waaye kenn du ko dimbali maa ngi fàttaliku benn bis bisu ah, ah, alxames la début yoor yoor soxna si génn ci biir kër gi jëm kër Baye Cheikh Diop ma ci dëkk bu ñuy wax Marakan sëñ bi di ko xool ba àgg mu ne ah ku gis ku dem àjjana ku bëgg a gis ku dem àjjana te faatuwul da xool ci jëmm jay dem kon loolu jigéen bu melee noonu am na melakaan woo xam ne su ko doomam melee du wette sëñ bi daal kenn werante ko moom mooy sëñ Tuubaa mu sotti ndax moom mooy jëmm ji nga xam ni ay mujj saatam nii xula wax ci rajo nit di ko dégg ndax amaana lee nga wax ko ku xam dana ca jëriñu waaye ku xamul da cay loru ndax dafay ëpp dégg gi dafa ëpp ci nopp sëñ bi lu lu mu deful ci jamono. ci loo xam ne wàllu waliyu la wala xutbu samaan la wala waare bi la loolu amul lu lan la lu nekk jaar na ca man ñii wax ak yow tey seede naa ci màgg yàlla tamit sëñ Tuubaa sama waajur bu jigéen moo ma nettali wax na ma ni li ñuy wax ngas dafa laa dal ba la ci lal bi tëral ci ne faatu na nee na ma sama yaay nee na ma keroog tiir ba ñu suufam bi dafa rot nee na ba mu ne feneen ak yox sëñ bi génn ci këram jëm kër sa ñaan ne ko soxna mi lu mu doon mu ne ko kii dafa faatu mu ne ko bu ko waxaat faatuwut kii du dem ruugi tàggoo bay dem kon dem fenn sama yaay wax na ma ne sëñ Ibrahima moo ñëw ruuf ma biir mu ci per téye ba mu yàgg ma ne soxna mi nee na ma ne ko mbàkke mu ne ma demal demal demal ruwéli ko nee na bi mu waaxoo di taali laa dégg nga tis li mais sëñ Ibrahima moo téye kaas ba sol ma ko ba mu fees ne ko soxna mi mu ne ko mbàkke mu ne kii dana fi nekk lu yàgg di lijjanti ay bokkam lu yàgg loolu wér na maa ngi juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn tey su boo xoolee sama jëm bu ñu la ko tey doo ko mën a gëm waaye maa ngi juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn sama néeg day maa leen lijjanti sama néeg bàyyi maa leen lijjanti kon loolu doy na firnde sëñ am ma nag mooy sëñ Ibrahima moom ma la wax ndax mooy waajuram Cheikh Baara mi nga xam ni mooy seen mag tey mooy sama wasila waaw may wax ne moom sarafat Cheikh Baara sarafat te wallaay la sim lañu leer na ma ne danaa faatu laloo sama ndeyjoor ci biir pax kenn du ma wéttali sama jëf rek ma fay wéttali kon lu may seede war naa koo xam li nga xam ne moom la alxuraan di digle rek wa ma saidna ilaa bi ma na nit daal li mu xam ci ni rek moom la mën a seere moom bi muy ñëw fii ci dëkk bi suñ kanam la bari nañ lu baree bari la ñuy jaxasoo it ci euh, wàllu diggante sëriñ akub taalibi ndax nag ñoom ay sëriñ leen woon ay taalibi lañu noonu loon ànde wana moom waaye gis nañ ci moom yàlla kese kese ji fees dell gis nañ ci moom itam bëgg sëñ Tuubaa bu wér-wér ak bëgg boppam ak i mbokkam waaye usnu maxaab ji itam da ko bëggoon ngir jëmmi ki ñu ko joxoon mu jëmmi si sëñ Ahmadu Lo ba tax na kër yi da daan dox par benn par benn boo demee boo ñëwee mu ñëw bu ñëw mu ñëw bu la gëjaan gi sax day ñëw ci yow di laaj ba xam looloo daal wala nangam kon loolu lañ ci gisee mooy gise nañ ne yor na jikkoy jaboot jaboot mooy koo xam ne bu la gisul bu gisul doomam da koy wëri te moom jàppe woon ne ñëpp ay doom jàppe woon ne ñëpp ñu mbokkal ndey ak baay penc mii ñu nekk muy usnu maha bi itam eh, xal na fi lu rëy loo xam ne dafa am benn bis boo xam ne dafa dem ba ñu bëgg a màggal màggalu Tuubaa gi mu di su safar mu jóg dem ci baay Baraka dem ci baa Cheikh dem kër baa Cheikh daal jaar sama kër man mii Moustapha Ndiaye daal ne ma léegi dañoo bëggoon waxtaan dama bëggoon magal gi nu yamale ko Tindodi bañ a màggalee ci Touba ñu nangul ko loolu ba ba léegi tax na gi dëkk bi yëpp ci penc mi la ñuy màggale li am ci ay bernde yëpp foofu lañ koy yóbbu beneen bi topp mooy lëkkale ne woon dayri yëpp itam ku bari woon yërmaa la nit ndax jamono bi muy lijjanti di yi ku fu mos a soxla kër day ànd ak yow lu naaj wu tàng-tàng ndax joxe na pàkk sax guddi ndax yërëm ndax yërmaane jure yi lenn rek moo nu ci xaw a xaw xaw a naqar yi te du aw naqar ndax jëf yàlla la mooy teel gim teel a dem bàyyi na fi waaye gëm nañ ne bu fi nekkoon ba nag nii kon nun xam nañ ne dana dolli ko waat bu wér dana am yàqin bu man mii di wax ak yow sama xarit la woon sama wëlëre la woon benn bis la ñëw toog sama kër ci wàllu loolu moo indi sax euh, sama rakk fii ci kër gi bi mu ko tuddee dama ko ne lépp loo fi tëdd bu soobee yàlla damay dund noo ko bëggee da nga ko ne amee loolu moom ke dëkk bépp amee lañ ko njukkal waaye dëkk bépp sant nañ ko waaye dëkk bépp la yemale woon it kër gu muy dugg ak gum dugg du gedd déedéet du gedd du bañ kenn du fañ kenn alalam itam saa boo ko soxlaa dana la ko jox am na fulla ji fulla itam lu mu soxlaal ci yow dana la ko laaj ndax moo ko war laaj boo ko joxee dana sant dana la gërëm dana la ñaanal boo ko jox mu xam ne da nga ko yor ba liggéey da ko jox loolu moom xam nañ ko mbëriwu doon ab laaj mu ab joxe la ëppale ci ab laaj sëriñ Axma Mbàkke moom Cheikh Abdou Lahad moom sëriñ Baara moom sëriñ Bamba nit koo xamante waajuram yi moo ko euh, jël tudde ko Serigne Ahmad jox ko ko baayam bu baax bu bëgg ko jël ko dóor ko fii ci Tindodi mu nekk fi nag li ñuy jooy ci Serigne Ahmad mooy teel dem la jooy waaye macha allah jooy ñu dara xanaa tey nag di ko fàttaliku di fàttaliku jëmm ju am yar jëmm ju ami teggin jëmm joo xamante ni taalibe la defoon boppam macha allah ñëw ci ndigalul baayam bi moo taxoon mu indi ko fii Tindodi waaye waa Tindodi gi yëpp téye Serigne Axma bi ñu ko gisee ñu jàpp ko ngir jëmmi Serigne Touba ji jàpp ko ngir jëmmi boppam ji waaye jàpp ko ngir jëmmi turandoo bi ñu ko gisut it ñu téye ko jëmmal ko kàttanal ko fulaal ko di ko màggal ba tey jii tey ku ñëw sa yaram daw ndax day mel ne Serigne Axma démb mi ngi fi. te sëñ Axma bi mu làqoog léegi am na diir yàgg na waaye ñu jàpp taa bàyyi moo waral ba tuut tànk mi màgg ñuy sant nag seen baay bu baax ba sëñ Cheikh Baara Mbacke moom Cheikh Abdoulaye moom sëñ Baara moom sëñ Bamba taxawu na leen saytu na leen ba nu gimmi jàngal leen ba nu xam yokk seen xam-xam ba tey jii ñu taxawal bis bu tedd bii di bisub sëñ Axma njaboot gi nag ñëpp ñu jóg ku ñu bokkal sëñ Tuubaa teew nga taalibey sëñ Axma yi teew nañu waaye waajuru sëñ Axma yi ñu fi nekk doon àndoon na sëñ Axma ñun ñëpp ñu ngi wax saa yu soxna si sant rek ak béek. sëñ Axma nag dafa doonoon loo xam ne dafa dafa nekk suñu xol ba nga xam ne waxtaan bi mën na sori sax waaye nag doonoon na ko xam ne pour l'islam la loolu nag tamit bu woyofal boppam nga xam ne boo ko séenee da ngay jàpp ne yow kii daal da nga naan moom dafa oyofalal boppam daal dara àdduna soxlawu ko woon loolu nag tamit koo xam ne ku bëgg liggéey la liggéeyam nag ci wàllu mbay la gënoon a jëm daana bay ay tooli korosé yoo xam ne jigéen ñi dañ ko daan jëfandikoo daana tamit bay lu ay tooli gerte bu nawetee waaye doonoon na koo xam ne nii soo jàkkaarloog moom rek di nga xam ne ci wàllu seen baara waaye nag waaye fa mu ne am colom waaye fa jëmm moom fokk si na ko boo xam na ay loo xam lépp loo xam ne lu jëmale woon kanam ci ñoom dina dem subaar xool heure bu ñu bëggee dox di ko wax. demoon ba année bii mu jëm na xam ne masoon dem di dem xel koom. bi ñuy dem xel ko booba dafa di ay xar yi yow di bay kenn ku ne yow nga sa giru xar boo xam ne bëggoo mu dara si nit ñi dañ dama def mën a dem ndax sama jur gi mu ne leen dem leen sëñ Baara xam naa du ko bi ñu baax ja ak teddagaam ja ba kenn jàmbur fi dara ba ñu gis waatee xel koom te yaakaar naa xel koom jooja xaw nañ waa am diir jigéen ñu bari dem na waaye ba tey lam fi bàyyi woon dara si ko. sëñ Ahmad Laan doon jëmm joo xamante ne bii yàggul ci àddina waaye def na fi lu dañ ko tudde woon Serigne Ahmadou Mbacke Tindoo di jox ko ko muy ko amoon ab yar amoon ak taalibe bëggoon loolu dëkk bi nag bëgg ay taalibeem fépp fu ab taalibe nekk daana la fa fekk ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ak moom fii ci Tindoo di itam kenn ku nekk joxoon na la sa cër bi mu am ci yow. daawul toog xëy ba jant bi solo te génn seeti taalibe yi nga xamante ne bi ñoom la nekkandool ci biir dëkk bi waaw ba tax na ñu koy ñaanal yal na ko suñu boroom defal àjjanay si te yàlla taas ñu ci barkeem teel a làq gi daal lañ ci réccu waaye nag bàyyi na fi kilifa gu mat kilifa itam wax dëgg yàlla bu ko saytul njaboot gi sëñ Cheikh Baara Laat fépp foo xamante ni sëñ Axma Laat taxawoon na fa rek mottali na yéeneem ndax saytu na njaboot gi saytu taalibe yi sëñ ma nag gàttu fan nga rek lañ ciy jooy wax dëgg yàlla di ko seedeel jullit yi fi teew yëpp xam ne tey luñ ko fi jàngal ci alxuraan ak xasida rek jomb ko ndax ko bëggoon ak taalibi la te bëgg waa dëkk bépp bëgg tund wi fii ba baala fii ba nayde fii ba cëréer ga sëñ Axma laat képp koo xamante ne bi jëf leen teewoon nga ak sëñ Axma ci ndooy rek daana taxaw ci yow Euh, def ak yow maslaa moo xamante ne bii tey bisam bi gis nga ko amul kenn amul kenn walewu ko ñëpp ñëpp séeréer seeg pël naar olof ñëpp a dikk di ko fay si borom rek ñuy ñaan yàlla yokk ay leeram tutaas ci barkeem di leen ñaanal yéen ñi nga xamante ne bii tam yéen ñëw jël si teewe si màggal gi suñu borom defal leen lu kawe seen njort ñoo ngi ñaanal jullit yi fi teew yëpp daal ak taalibe yi di wax na daal lépp liñ xam ci moom ci lu baax daal sax wax dëgg yàlla xaju ci wenn waxtaan. ki ñuy liggéeyal nag daa mat a liggéeyal daa jar a liggéeyal monsieur Amadou Lahat li ne am na ko ci dëkk bi lu ne def na ko ci dëkk bii nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal suñu borom xare ko àjjana ci yéexee ñi wax dëgg yàlla ndax lépp loo xam ne nii neen bëgg nañ ko ci dëkk bi rek daanaka bu ñu ko am rek suñu moo ñu ko may gannaaw yàlla bu passé ak yonent bi sëñ Tuubaa kon lépp li ko war a sant sant sant ci yonent bi sant ci sëñ Euh, lépp bu lu passé yi nag bis bi moom su ko fonk koo xam ne emal luñ ko lenn ngir jëm si amul laat ndax lépp bu ñëwee lépp lu ñu jàppoon rek dañ koy bàyyi ànd ne nii ñoom lañ ko war a liggéey ko ni ko war a wax dëgg yàlla kontaan nañ lool ci ni ngeen defee bis bi itam leen di ñaanal nag yéen rajo bi ko ci kanam barke borom Touba. yoo ne dootu fa jóg lépp ak baara gis naa fa mbàkke kajoor xéewalu jëm abadaan yoo ne dootu fa jóg lépp sëriñ baara looloo at mu jot doomam yu baax yi mu am ànd ak sëtam sëriñ baara ku di murit na dagal foo man du bum tega faas wala rek waa kër Sëriñ Baara am na si yàlla ngërëm yoneen bi xëy ko borom Cheikh Bamba xëy na gërëm Sidi Lamin Baara am na si yàlla gërëm yonent bi xëy ko gërëm Cheikh Bamba xëy na gërëm Sidi Lamin Baara Mbàkke Kajoor mooy cosaani baax mooy dalub murit mooy kër sëñ Baara taalif nay téere yu siiw te biire jommal nay foore Cheikh Baara Mbàkke ki taalif bunyaan mi noon na ku dégg bunyaan yéem sëñ baara sëriñ baara jënul njàngaani tanar quraani jaaxal nga waane cheikh baara mbaake doo xam di fakku foo dem ni jokkuun yaatal nga bokku cheikh baara mbaake yow yaa waa bari baatin xaajoo ca la gën ak baatin Cheikh Bara Mbacké wa rahmatulahi taala wa barakatu Laat ñu lay nuyu di la ak njaboot gi yëpp ci njiitul sëñ Moustapha mu sëñ Ahmadou Lahat. ci ndigalul sëriñ seex Mbacke mu sëriñ Aliou moo nu fi yebal mu ànd ak sëñ Mouhamed mbakke ak sëñ Baye Guèye suñu jëwriñ ak sëñ Youssou Kama ak mbooloo mi yëpp sëriñ bi xamle ne fii moo fi bëggoon a toogal boppam waaye yitte yi dabe te du mën a ñàkk moo tax jëmmam teewut waaye mu yeble ñoo ñii ñu teew fi ñu ànd ak moom nun dong bi di wax ak yéen di Aliou Ndiaye daarul abraar sëriñ bi sëñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Aliou mi ngi lay niiw di la sant di la gërëm di gërëm njaboot gi di gërëm taalibe yëpp ci jëf ju rafet ji jëf ju màgg ji nga xam ne ku yewoo ci pencum Tindoodi ak li ko wër ni mu leen ware ni la ware ñëpp ndax jëmm ji tax ñu di ko def ku ko xamul jëmm ji it dégg nga tur muy sëñ Abdul sëñ Ahmadou Laat Baara mu baax moomee fi nekkoon ci loxoy sëñ Ahmadou ci nekk gu pasteefu ànd ak aw fit ak jom ak ngor ak taalibe la ma doon doon kilifa dafa wàcce woon boppam ba def boppam ab taalibe ndax ak baaxam kon sëriñ Cheikh nee na jëf ji moom lañ ko defal nee na ci biir loolu yépp nag muy santaat bu baax sëñ bii nga xam ne mooy kilifa kër gi te moo sëriñ Cheikh du ñaar kenn lañu képp koo xam ne xam nga ci diggante Daaru Xuddus ak guy mbind dara xam nga loolu yi ne lu am la fépp fu ci kenn toog ci moom ñoom toogaale na fa ka ca des buñ bokkee toog itam jenn jëmm la ju toog sëñ bi ne sëriñ Cheikh nee na mu ngi lay sant di la gërëm ak njaboot gi ak taalibe yépp di soññe bu baax ci liggéey bi xam ne moom lañ ko defal xolam sedd na ci guy xelam dal na ci yaakaaram it dolliku na ci waaye nee na mi ngi yeesal la leen boole woon démb ak bërki démb te ngeen di ko dox ba tey te bis bu ñëw ci seen kanam gën a jàkk bis ba weesu yàlla na yàgg lool te ànd ak wér gu ànd ak xiiwal ak sutura ak ngërëmul sëriñ Touba ci barkeb Daaru Xuddoos ak Guy Mbind sëñ Mbay Géey la sëriñ bi yebal ak sëñ Mouhamed nu ànd ak ñoom ci ndigalal sëñ Baye Guèye ak sëñ Mouhamed la ñuy jottalee kàddu yi lu jóge ci ndigalal sëñ Cheikh Aliou lu ci dëng nun ñi koy jottali la waaye lu ci jub mbaaxu sëñ Cheikh mi nu yebal la ak sëñ Cheikh Baara Laat nga xam ne kuy dégg ci yoonu murit di dégg ci lislaam jàpp naa ne boo dégg boo xamul jëmm ji it tur wi dégg nga ko déggati ko ci fépp foo xam ne lislaam a ngi fay yëngutu dama jëllalee li ñuy tudde yoonu murit waaye fu lislaam di yëngu ku fay teew xam nga jëmmi sëñ Cheikh Baara wala nga dégg ko ci pastéef ak kàddu kilifa ak yoonu murit di jaar ci làmmiñam mu di ko jot li mat sëkk te matale lépp loo xam ne fu ko liis ko dund lislaam dégg man caa jariñu ba ba ngay tasewaat ak moom kon loolu yi sëriñ Njaay wax sànq na ñépp ñaan suñ borom mi nga xam ne jeexalul dara te du sàkku ndimbal ci fenn te tëlewut ci lenn mu yàggal jëmmam ji te wéral ko te wéralal ko ñi ko wër te yuy ci ay ndigalam ak jëmmi sëñ Moustapha nii toog toogaayub sëñ bii ñuy defal bés bi ak jëmmi sëñ Cheikh Aliou seen jëmmi bopp jooji ñu bokk loolii ak képp ko fi teew suñ borom boole faj aajo yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadim Rasul <coughs> sunu yaakaar tey ak ëllëg ginnaaw ñu ngi ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi lool ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha di jawriñu kër Cheikh Mouhamadou Baara yàlla yàggal ko fi lool di ñaanal Serigne Modou Baara moom Cheikh Abdoulaye moom sëñ Baara yàlla yàggal ko fi lool. di jiital nuyoo bi ci Serigne Cheikh Xaliil Mbàkke buñ paree toftal ci sunu waajur wi toog comme na ma koy waxee woon daaw laa koy waxawaat sama waxi tay mooy sama waxi démb man du ma wax lu ma gëmul bala maa ñëw ci loolu dafa am kilifa yoo xam ne dañ fay ñëw jóge fu sori ku ci nekk bañ la waxee bis bi da ngaa bëgg sa yitte ñëw li ko waral mooy seen diggante ak sëñ rek koo ci taxaw wax ko benn kàddu bi lañ lay wax. daa baax daa am yitte gudd fa ñàkk gudd fa la ñu jógee ci moom loolu rek la wax koo ci wax bis bi da ci sawar ñëw ku ci ñëwul tamit da xam ne da ngaa génn wala nga wala nga jàpp wala nga def te boo ñëwul dañ fa yeble kon ku mel na sëñ Cheikh Aliou Mbacke ñu ngi koy nuyu di ko siyaar sëriñ Baara moom sëriñ Dan ñu koy nuyu di ko siyaar moom tamit teew na fi sëriñ Siiri moom sëriñ Abdou Baara. di ko nuyu di ko ziar moom tamit teew na fi sëriñ Xaadim moom sëñ Aziz Laat moom sëñ Baara ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom tamit teew na sëriñ Moustapha moom Laat te di ko ziar moom sëriñ Baara xam ne su ma ko limee rek moo nekk ci bopp njaboot gi damay Sa sëriñ Saar Mbacke moom sëriñ moom sëriñ Aliou Mbacke rakk sëriñ Cheikh moom tamit teew na fi. sëriñ Ousmane Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad moom sëñ Baara moom tamit teew na fi sëriñ Modou Mbène moom Cheikh Abdou Lahad moom sëñ Baara moom tamit teew na fi sëriñ Assis moom sëñ Xaari Modou Baara ñu ñu ngi koy ziar moom tamit teew na fi sëriñ Moustapha Guèye ñu ngi koy ziar moom tamit teew fi sëriñ Mouhamed ngi koy ziar moom tamit teew na fi ak soxna Jàmm Mbacke ñoo xam ne ñoo dëkk te lépp rafet moom tamit teew na fi soxna maam xarit Diop. moom tamit ñu ngi koy ziar bëggoon naa ñëw waaye moom tamit yónnee na fi soxna Kine Ndiaye moom tamit diggante ma si nga xam ne xam na ko moom tamit yónnee na fi su ma jàllee ñu ngi nuyu waa daayira bi moo wax xudóos ci njiital Baye Cheikh Lo ak Baye Modou Dieng di leen di leen ziare di leen sant di leen gërëm man nañ moom samay wax daanaka du ci bari ndax gis lii nga xam ne nii nii li ñuy def yàlla rek moo tax nit wan na ginnaaw lu toll fukki at ak benn nga di ko taxawee ànd ñeen àndaloo suñu am day war ne yàlla rek moo tax dara taxul bi ngeen di taxawee bés bii man maa ngi di jàng da ngeen daan taxawee sans fi sama kilifa gi nekk fi moo tax nga xam ne li ngeen def yàlla rek moo tax sama diggante ak yéen nag moom jur wax ji du bari ku nekk xam na ko. tundóor yi moo duggee amul taal bu sëñ Ahmad amul taal bu sëñ Seex amul mbokk amul dara ñëpp koo tuddee sëñ Ahmad bala ngaa baanee ñaara ay nga ñun tax nga xam ne moo ko fi liggéey su ko defu doon leneen su ko defoon dara tamit ñoom ko seeraan donc moo tax lu war a jëf lay doon loo xam ne lu baax la ndax boo waneen boo leen wanee ginnaaw ñu ñu di la fàttaliku di la taxaw sëñ Seex sëñ Seex sëñ Seex si almaxtum dara wax naan ba ñu ma dee damay bañ dee ñu fàtte ma te yéen ñi ku leen gis xam ne fàttali na si ñaam guddi ak bëccëg suba ak ngoon ci moom ngeen di dox man mi nga xam ne man la bàyyi doonu ma doonu ma mat su ma leen soxla woon ku ma ci woo na la fekk mu bërëb sàngam bala maa daaneel nga fekk ma fa te loolu li seen diggante suñu am kese tax ngeen def te seen ànd woowu nag yàlla laa koy seddal te kanam lay na nag na bu du dese suñu ginnaaw ndax ñun du dese suñu ginnaaw xam nañ li ñu war lépp te ña ca. te borom bis bi tamit ñu ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem man na kanama mën na ginnaaw wallaahi man na kanama mën na ginnaaw waaw du lu nekk sama baay moo tax ma ci seede man ba ma juddoo ba léegi nii xamul ma ko dara fii laa xam suñu borom seede ci moom mi laay seede moom laa xam ba ma juddoo ba léegi nii moom lu ma jox leneen ba ma wax ci moom tamit damaa wax leneen rek waaye dégg naa ak mbaaxam te nit ñi di ko jëf li gën a jafe léegi ci àdduna woo ginnaaw nit ñu lay fàttali ko jamono ji ñaare koo woo ginnaaw yàlla xam na ne duul amaat soxla ci yow sax ak Sëriñ Tuubaa mais nag ku loo gis xam ne seen ànd bi yàlla rek moo tax beneen ba ci topp ñu ngi sant suñu kilifa gii na ko waxoon daaw commencé ci moom yem ci moom man fa nekk koo ko jàpp ñu jàpp la ku ko ku ko tege côté ñu tege la côté man de awma ko dum moom comme ku am keneen ki nga jël bàyyi ma ak moom ndax lu nekk ci man ba nit duma ko xoole wala may dem naan nit naan nangam mu dama fekk si moom mi moo ko def ci man amaana bi fi sëñ am ma jóge woon su ma seedaanoon yàlla xam na ne lii naa bañ am wala bu amee tamit du demee nii te sëñ Cheikh Aliou tamit ñoom ñaar ñoo ci man koo ci dem lu baax leer ci yow boo demee ci kii mun la daa dem jàppal sa baay boo te li ñuy wax yàlla rek moo tax ñu di ko wax fi sëñ Cheikh Bara fi mu féete fi la ma sëñ keneen keneen féete kon ñu gën a jàpp ñu gën a góorgóorluwaat te jàpp suñu kilifa ji jàmbaar la de man de xam naa lu bëree bëri lu bëree bëri xam naa ko du ko nag du du dem fenn ren la waaye su ma toog man lu bëree bëri xam naa ko fu bëree bëri tam dama fay toog te xam naa li ñuy waxtaane ci saali xam naa li ñuy waxtaan ci mbedd yi xam naa li ñuy waxtaane fépp du ko du dara nag moo tax ma di ko wax damay seede ay kàddu yoo xam ne yàlla rek moo tax ma di ko wax man du ma wax lu ma gëm barki Baar du ma wax lu ma gëm lu man na may wax loo xam ne góomu ko yàlla xam na ne yàlla na ma yàlla jëlee fi ma nekk barki sëriñ Baar du ma wax lu ma gëm la moo doon wax daaw moom laay waxaat ren wallaahi kàddu yu may seede ci moom moo ne ci moom te baas bi koo ci doxoon kàddu te njabootu sëñ Axma mën naa seede sëñ Cheikh Baar ay kàddu yi ñu baree bëri mën nañ maa seede fii ay jamono météo na fi trop trop trop mais taxul mu seetaan benn yoon fu nekk mu fa dugg di ko sonal guddi ak su suba ak ngoon mais tayul benn yoon wallahi tayul benn yoon bu yoon jël suñu wax lu jeex lu nekk ci ñun ñi ak lu lu nekk su suñu kër gi lépp moom moo ko fi def njaboot sëñ Ahmad yëpp da leen téye yaakaar naa kenn doogu mën tee loxo muy sëñ Baara te turam dam lañ ko jox waaye njaboot gépp la téye muy jigéen muy góor muy mag muy ndaw ñëpp la téye kon téye bi ngeen war a téye rek leen téye taxaw gi nga taxawu nekkoon tamit nii nii la ñuy taxaw donc li ñuy taxaw loolu nag faaw ma seedal la sama biir mbokk ba xam ne seedal nañu benn yoon ku xamul di wax tamit mu xam ne lii ma wax nii mooy li am seedal ñu benn yoon soo xoolee njaboot gi suñu Seex Bara daayir ay njabootam ñëpp ñëpp doon benn. soo ñu fekkee ñun seen mbàkk ñëpp dañuy kaf di ree doo xool doo xam sax ki mag lépp moo ko def ci ñun ñëpp nag doon ay taalibe topp seen ginnaaw li tax ñu doon ay taalibe topp ci ginnaaw moom heure bu gisee ko ko mag da koy warmal wàcce boppam jaay ko ak taalibe ba fii mu fay jóge te ci moom lañu ñu rey nit nag bu dee boo dee rey ci moom li mu def danga nga kaa war a def ñun ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw ëllëg man moom. dama lay liggéeyal ba keroog may sàngoo suuf fa féete ma gis la ak ñàkk laa gis nga wan ma ginnaaw ak nga ñàkk ma wan ginnaaw fa ma nekkoon démb ak tey falaa nekk ndax sama baay nii la dal toppee woon lépp suñu ak ma bàyyi du ma ci dindi lu dama koy yokk innovation dama koy yokk rek mais du ma ci wàññi dara suñu ak maa ma gënoon a jege suñu baara fuuf danaa wàcce boobu bett suuf di ànd ak yow bëccëg suba ak ngoon. lam nekkoon nag du ma ci wàññi toll tarafatal ay toppee ma la ngir bàyyi toppee ma ngir dara dama laa toppee yaakaar àddina ak alaaxira que sëñ Baara li may wax yàlla rek laa ko seddal parce que dangaa def ci man loo xam ne du duma du di ko wax lépp lépp waaw. jëf nga ko barki démb bi sama magam tudd nga ñëw tudd ko man la si sëñ Moustapha man moo la xasee gis rek àgg naa ci sëñ bi te sëñ Cheikh Baara la da laa bàyyi yëpp nga doy ko ci loolu. bi ngay kàbbaar bëgg a julli da ngaa gis a Cheikh Fall nga daal di tourné nit man lu ma jàpp bi sëñ bi rek bàyyi naa ko wala sëñ sëñ Mbacke man yaa ko ni tel màggal Touba fukki fan gisuma nga ne ma maa ngi ci sëñ rek di tënk ñu sëñ yàlla fi waaye nag doo ko rëccu ndax sëñ Cheikh Fall mi man laa defar keneen keneen ku keneen keneen keneen ku ñun ñi axma laati ngi nii barki dem lan dem Dakar fekk ko fa mu toj jàngi foo gis rek mu toj jàngi di fa jàngi defar defar gi moom mënut a passé tijji ay daara yu mag mag di dundal nit guddee ak bëccëg suba ak ngoon te taxawoo nit na ko dimbalee ma dara te li nga def yàlla moo tax koo fa jàngee boo mokkalee boo génnee ñu dugalee ci yeneen daara ngay jàng xam-xam di jàng arabe di jàng français ñu lay fayal te lay bi nit benn dërëm ku defal yàlla noonu ngay mel mais du waxi kese ku ko xamul nag man ngaa wax nangam nangam mais boo jëflante boo jëflante ak moom. di nga xam kan mooy sëñ Cheikh Bara wallaahi ku jëflante ak moom di nga xam kan mooy sëñ si Bara te li may wax nii tamit ku ñooy fi nekk ñëpp wallaahi ku nekk mënoon ngaa jël kàddu li may wax nii dong ngay wax leneen mënoo kaa wax ku suñ saanu doyloo suñ Alaaji Bara doyloo la suñ Sir Moutar doyloo la suñ Mountakha doyloo la ah man na leneen lu nit bëgg na xaw ko loolu daa doon sëkk maanaam nit bëgg man xawma ko loolu mu doyoon sëkk ñun koo fi gis muy liggéey nag ngeen mu suñ tubaa lay wut ku fi toogal suñ tubaa moom ngay wóolu di ko def loolu lépp ñëpp tam nañ seen bët te lu am na ñu ko mag ci yoon yi fuuf am na ñoo xam ne ay wajurum lañ def la wuñu moom lañ ko def la liggéey suñ tubaa ñu ngi liggéey ba leen tam bu caagin ku jóg rek ñu liggéey loolu déedéet suñ tubaa ki muy liggéey loolu dañ koy tànn am na ñoo xam ne yàlla xam na ne bu ñu jógee màggal gi ñu ci bëree bëree bëri yëgalu ma leen ba ci ñi nga xam ne ñoo yor caméraman yi yëpp dañ naa woo téléphone na ma bisub sëñ Axma nangam ak nangam nañ faa bëgg a ñëw barke sëriñ Baara fayu ma leen benn dërëm ni lañ ma ko waxee te ki ma ko wax yàlla xam na ne ñu ngi doog gisante man a moom barke seen Baara ab defaram la man fee ci moom bëgguma dara soxla ma dara ci moom rek laa commencé ci moom laa bëgg a man ak samay mag yëpp nag di tàmbali sëñ Abdou Aziz Mbacke sëñ Cheikh Mbacke ñëpp li tax sëñ Baara amul morom courant daa coupé léegi nii ñu toog fii di julli Cheikh Baara sëñ Moussa Alla bi nag damaa bëgg courant am léegi balaa sëriñ mu demee commencé mu ne ma dana am léegi barke sëñ mu ne ko baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant taalibe yi ab taalibe mënut a dem sans sëriñ ab sëriñ mënut a dem sans ñu gën a góorgóorluwaat bu baax tax gën a xam kan mooy sëñ Tuubaa te riirandoo yi yëpp ñu bañ cee dugg ku ci nekk fa nga nekk nga féeta fa nga xam fu ci nekk fa nga nekk boo boo jàppee rek day naat mais nekk sa gar ba pare di cor boo coree cor ba day wadd rek mënul nekk ku nekk nga nga nekk ci yam te bul xeebal nit ab ab sëriñam rek da nga ko jot koo xeebal ab rek da nga jot nit mën ngaa saaga saaga ko waajur du dara mais soo soo saaga ab sëriñam ngeen jëflante léegi nga xam ne ak sëriñ ci xol la sax ñu ngi sant sëñ Axma mi nag nga xam ne kenn la ci kër gi dara nag taxul ma koy sant parce que jamono ji daa naqaree waxe ndax mën nga kaa sant ñun nangam ak nangam ak nangam fii laa ko waxee nag yow bu kenn fenn fii laa ko sant sama biiru mbokk te sunu mbokk la lu dul dara jamono ji daa naqaree waxe boo waxee pare. ñu ne nangam moo tax mu nangam man xam naa li xew ci réew mi lépp xam naa li fi dox waaw dañ koy sant di ko gërëm bu dul dara taalibe ci kër gi ak mbokk la fi ba ma ko wooyee tey jii la jóge Dakar ñoo ne ma nu ma def naa ko fekk dagg yi itam ñëw luñ ko wax tamit ci kër gi da ci taxaw ba mat sëkk te dara tox mu koy def yàlla rek moo tax mu koy def li ma leen wax suñu Cheikh Bara rek. ak defaram rek ak mi rek exemple la moo ko yar bu mu toll nii. Ah. kese man sama wax sax su dee am firnde waaw loolu ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo waa presse bi di leen sant bu baax di leen wax ne kii ngeen defar lii mën na kanamam mën na ginnaawam te li ngeen def nii doon ko rëcc mukk doon ko rëcc mukk ñu ngi leen sant bu baax a baax te di leen gërëm. di santaat waa daayira bi di sant waa Tindodi nga xam ne mooy sama ñooy samay mbokk di sama dëkkub cosaan di sama lépp ba sama bàyyi nekk kat ñu jox ko suñu ax mag bi bi suñu ax ma yeewee suñu bilaa da kaa booleeg suñu sa baara ko dama yóbbuwaat ko dama kaa laaj ay kaa jox kon nag man amul lu Tindodi suñu ax ma fu mu mosaan a nekk bu tamit jotee mu ñibbi si Tindodi da daan dem xel kom bu tamit jotee mu ñibbi si Tindodi waaw bu tamit jógee ñu mu ñibbi si Tindodi kon ñun amuñu lu dul Tindodi ñu ngi leen di sant di leen gërëm gis nañ taxawaay bi di ñaan yàlla yàggal leen fi may leen xel lu bari bàkk Sëñ Tuubaa di sant waa Baalo di ko daggee ca Ba Aliou Fall nga xam ne moom lu mu yëg ci kër gi tamit muy liggéey muy màggal muy lu mën a xew dafay yebal ay mbokkam ñu ñëw fi dafa yàgg ak njabootam ñëpp di sant waa Céré di sant waa Naye di sant ñëpp mbokki taal bi yëpp ñu ngi leen sant. da ci fàttali koo xam ne sunu lépp la muy Serigne Ahmad Aliou chaque màggal bi dara ñëw bokk ak ñoom ba ngoon jot yàlla dakaa moom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm sëñ Ahmad alliw comme li ma wax rek sànq si Seex moom fa mu féete woon fa fa mu féete woon bu njëkk fa la féete woon ba nu mu sëñ Ahmad jóge toppaat ci loolu tamit du ñëpp li ko du ko sàmm. lu ñu doon doon gone wallaahi heure bu màggal ma saan ji suñ ko demee wax ko dafay dafay dagg ay mu su fee yable day dagg ay itam ñëw fi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm nit ku baax la nit ku baax la nit ku jullite nit ku maandu ba woon ba dem kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm taxaar ko aljana barke sëñ tubaa barke sëñ Mounou Sow te ñu ngi leen soññiwaat nag dañoo jublu ci benn programme boo xam ne muy màggalu Mbàkke Kajoor ñu bàyyi ko xel bu baax a baax mooy nga xam ne mooy sunu màggal ñun mooy sunu màggal ndax boo demee Kër Sëñ màgg màggalu Kazu Rajab lay doon nga dem Kër Sëñ Munu Sawa muy màggalu Daaru Doos nga dem Kër Sëñ Blaat muy màggal Sëñ Blaat ñun boo demee Guy màgg màggalu mbàkk Kajoor mooy sunu Mbàkke Kajoor dañoo bëgg ñu bàyyi ko xel du ci soñ laat mbokki taalibe yëpp képp ku ci nekk fa nga war a fa nga war a jaar nga jaar fa la nga war a def nga def ko ku ci nekk jàpp na bis bi soo ko defee rek bi jàpp ñu ngi leen ci soññaat bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kàddu yi nag mënoon na ñàkk waaye buñ ko deful dana mel ni dañoo door yàq ndax jëmm ji sax daanaka jarul dara fii kuy am ñoo xam ni tey kenn ku ne ci rek bu teyee fenn mën a jàmmal àdduna kooku daanaka waxam sax jarul suñu bari. fu mu toll yoon Cheikh Issa ba di wax dafa am ko jóg ñu bëri di wax am ko jóg ne waaye yéen déglu leen ko ba xam lu ñuy wax bu dee dëgg la ngeen xam ne dëgg la bu dul dëgg itam du ñu dara yàlla na ko dama dugg àjjana loolu mu jublu mooy moom mun taxawale boppam ñun ñu ñëwaat di ko waxal ndax ku fi xam rek. gannaaw ba nga jëfee nit ñi ko wax ba nga xam ko yàlla suñu borom sax nit ñi xëy maam nit maam nit yi tax ñu xam ko ndax nit mooy taxaw ne yàlla lii yàlla laa yonent bi noonu suñ Tuubaa noonu keneen keneen noonu moom na noo xam ni fu mu tawari jërëm yoo wax daanaka waaw li sëñ sëñ Moustapha wax dafa am solo lool kenn amuloo ko sëñ Tuubaa kenn mënu ko am itam te moom fu ma la gërëm si mais te nag naa xam li suñ Moussa am solo xam nga tey mën nga wax ni ki naan jiw kat mënoon naa def nangam ndax yàlla may na ko nangam waaye bokkut ak jiw def nangam moom dafa def te man ku ma xam ci àddina rek ngay nit ku baax bu xamee xam naa ko doomu da lay moytu fi dégg nag laa wax de bu xam ne xam waxuma la nga bu xam ne sax maanaam sa mbokk la ak sa sëriñ la ak nangam bu xamee ne xam nga ko dong bant la lay laal man nag damaa xam Abdoul Aziz Mbacke mii di di tawam dafay dégale xas di suñ jox ma ko ma koy liggéey pour xool suñ baara moo def ak moom daal waaye bunt bu ma duggee moo lay fekk mu toog moom mii. loolu mosuma ko wax sax waaye fu loo ñu def rek bu ñu waree dara moom mi lay gis mu toog ci buntu boo xam ne ku fa jarul ku fa duggul doon fi ne nii damay dem ni moom ku ko foogul rek maa xamoo sëñ Baara waaw ku ku xam sëñ Baara waxuma sax ci mbirum yi rek ci saa boo ko jàkk xam ni moom moom maanaam lu ñu gis sax maanaam loo xam ni lu ñu naan lii la ak lii déedéet xam na mbir mbir yoo xam ne ki mënu ko wax waaye kilifa yi bëri ci dëkk bii xam nañ ko bu baax moom nag dafa wax ko mag ku nekk baayam nag ku nekk nangam nag waaye nag war xam ah, ne du ma ko wax waaye nag li ma a wax ku xam daal dañ ko xam mu bés damaa damaa toog ci ay kilifa ñu waxtaan ñu ne ma waaw suñu xabaar yi man xam naa ni bu bu xam naa ni moom boo mën a àll xam naa dina sonn ndax moom li mu naqaree deret ma ne ko naqaree deret comme lan mu ne ma boo xam day dëgër daanaka du wax ji ma ne ko waaw xam nga dëgg moom mu mel noonu ku wax dëgg te di wax te day wax maanaam xooloo ci ku ku ku wax ku ku taxaw ak ak ku tëdd noonu lay mën mel. ma ne ko moom ma ne maanaam ba mu yor dara boobu yor dara yombul de man nekkoon naa ci kër gi kilifa yi ba ñu daan fi ñëw maanaam ca weeru koor di fi ndongo si tey jii gis leen sax yóbbatul léegi te booba loolu dafa daal am na xarit wax waaw kii day xam ne fu mu teew dañoo war di wax ci moom waaw nit ñi da ma yaakaar ne mënuñu ndaxte ku toll nii suñu si di waxtaan nga xam ne waxuma la sax. nekk nekk suñ nekkoon suñ tubaab waaye baatin bi nga xam ne moom du du waxantu du xoolantu ku mu jël ni ni maanaam kii moom lépp lu xew fekk ñëwut lu lu nga mën naa leen ba ñëw rek mu wax ne lu loola am loolu ku mu doyatul loolu lay doy man nag damay koo xam ne maanaam sa ma sama roon ma doon du ma toog fenn nag ñëpp xam ah, man ku ma ku a waaye du kii loolu loolu ndax damaa xam kii sëñ Baara la du ko tibbal lépp sama sama waajur jigéen dama damaa xamante mu loo xam ne lu bari ne mën ma ko waxaat waaw loo xam ne ma toog wax na ma diw nangam nangam nii sëñ bi wax na ma wax na lii ni loo xam ne man du ma ko waxaat fenn moo tax moom lu la mën a mel moo tax ma ne kàddu gi su ma fi teewee ba jóge fi dama xamante loolu day mel ni kon sax daanaka ñoom ñoom sax daanaka woon su ma nekkul fuudu Sénégal sax bu ma soxla waaye bu nu woon booy ñëw na nga fexe ba nekk néew damay ñëw ba nga xam ne may dugg Tuubaa ma fexe mbëkk oto wala ma fexe faatoo nit ñoo benn waaw daa moom mbiri biir yoo xam ne kenn wax ci ay micro ay kii waaye jëmm ju tedd ngeen jëmm ju xam nga yàlla defal ngeen jëmm ju pare na du pare ci lépp dara tiitloo ko dara yëngaloo ko ndax lu nit di am am na ko bu yàgg am na xam sax dañu ñett naan léeg-léeg ñu alal léeg-léeg ñu def lu alal ndax xam ndax li muy jaaxale mooy amul ci àdduna lu koy taxam def leen na loo indi ci moom rek fekk lu ko waaw loo indi ci moom fekk lu ko li ko yóon daal mooy ay li ko jàppale leen mooy dëgg ak dox bëgg bëgg nit kuy dox nag xam ni da fu na am fayda suñ euh, euh, euh, dafa am coxalamaay ñu bari dañuy wax ni nit ki amal diine amal ngor waaye amul fu la ñett yi nag damay seet duwaa nga seen baar yi laa gis ñu bari bari ñoo ko ci am am ngor am diine fi ñu boo seetlu ñu bëri dañuy am ngor duñu am diine ñi am diine duñu am fulla moom daa boole ñett yëpp am na ngor am na diine am na fulla kon ku mel ni bu tewee ñu teew nekk koo xam ni dañ koy taxawal fu ne ci àddina bi war nañu suñu kàddu ba ñu xam ni du robinet de ñu ñooy ay robinet kii forage yi bëri nga xam ne ci moom souvent boo xam ne dafa dafa xaw a nooy ma nga xam ne moo tax nit ñi di foo da ko wax waxu dëgër ñu xam ñu xam li ngay wax ndax kii kenn waxee moom kenn kenn waxati wax ndànk ngay wax ca kaw te boo àndee ak moom bu doo ragal waaw kii boo ànd ak moom déedéet amul a dugg da boo nga fa man fu ma dugg nga xam dugg naa taw taw nag ma nga xam ni loolu dara ci moom boo jëlee ndàll mi kese kese kese kese kese mën na mën na ci loolu kii du koy fooy sëñ bi waaw ñun nag kenn du kenn tële de waaw kenn mooy kenn mu def mu kenn tële du ci wax du jëf nag waaw moo xam nga ko ñàkk koo xam du ko jéem rek nga xam ne si moom sax sori ñu ngi seere sëñ Sidi Matar mi di nit ku tëdd ko xam ne sëñ Bara ma waaye moom tax mu ci mos waaw sëñ Bara rek moo tax mu bëgg ko lool ba pare bëgg sëñ bi nag loolu moom itam gis nga bi may jógee Dakar dama ko wane ko ne maa ngi dugg Touba mënuma sëñ bi day ñëw ma ne ko mënuma maa ngi jël taxi taxaw ci jumaa ji na ma fa yàggee ngir ngir soppi ku ko soppi waaw bëgg bu ko bëgg. nga xam sax émission yu bari ñu koy def ci télé yi day ci bari day nekk di jël référence ci moom kon bu teewee tam moom itam wàccuwaay yi nga xam ne yàlla jox na ko ko dañ ko ko war a jox waaw di siyaare sëñ Moutalla Euh, sëñ Mourtala ñu ma àndal bu sow moom itam ñu ko baax moom daal sant daal la def te daal képp ku bëgg naa xam ne ku bëgg njariñ ah xanaa ñàkk xam waaye yow leen jëkki de waaw te doo ñu ci mën moom xanaa mu ñàkk la wuyu ku mu xam ne mu di nga la. maa ngi nuyu mbokki jullit maa ngi fi daje yëpp di jiital ci nuyoo boobu Serigne Modou Bara mi nga xam ni mooy njiitul kër Cheikh Abdoul Ahad bu ko defee nuyoo boobu mu tegal nañ ci loxo Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy njiitul kër Cheikh bi Mamadou Lamine bu ko defee mu tegal nu ko ci loxo Serigne Cheikh Aliou mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bii mu tegal nga ko ci loxo Cheikh Ahmadou Makhtar mi nga xam ne mooy njiitul néegub soxna Aminta Lo mu tegal na ko ci loxob Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi toog tooraayu Cheikhul Khadim tey jii muy nuyoo bi gën a sell bu ànd ak ak taalibe ndax la ak taalibe lu mu jiitu lu mu jiitu rek daal di gañe lu mu nekkul itam ak moo fas muy daw ba ci course te te amoo soxla ñoo yem sero sero nga yem ñuy sant itam ak am nuyu délégation yi nga xam ne ñëw nañ fi yëpp ki ñu cee jiital mooy sëriñ Cheikh Aliou ndax sëñ Mouhamed a ngi nii toog Baye Mbaye ngi nii toog mm-hmm. euh, sëñ Aliou Ndiaye ñu fi wax kàddu yu rafet yi mu fi wax nga xam ne daanaka mënoon nañ caayam ndax kaddu sëñ Cheikh Aliou mooy sama kaddu man sama kaddu wóor na ma ni mooy kaddoom kon daanaka bi mu waxee waxoon ni sama tur laa wax sax man na caayam ndax sëñ Cheikh dëgg yàlla ñun xam nañ ko bu baax ñun bokkunoo ñu koy séen naan ko ee eh wala ñu jàng ñun duñ ñoom te ku ne xam na ñun gisuñu ci nit luy tax ñu ñu di la tagg wala ñu lay wax lu nekkul ci yow ndax kun manal dara ku lu yàlla amul ndax suñ motulaa def maa woowoon ba ma ñëw muy jàkk ji mujj a dugg mu di ma wërlu booba téléphone yombul ñu may wër ba gis ma bi mu jullee bi mu jullee ci jàkk ji ba pare war a génn nag ñëw ci nit ñi nga xam ne tay lay jeexal ba mu sëlmalee daa gestu ne hmm. ndax doomi Abdoulaye Abdi ñëw na ma ne ko waaw ñëw naa mu daal ni ma jàll si ba ma jàll see wëlis bu mu laaj la xool ko gis wëlis mu laaj lu mu xool du ko gis bu mujj mu jógal boppam jëlu wëlis di seet ba génn ci aw këyit jox ma ko daal ne ma këyit yi day sàlla boo ko dee jëfandikoo suba ngoon yàlla mi yore ndimbal moo lay dimbali ndax koo xam ne mi ngi lay dimbali bis dana xëy doo ko gis te yàlla moom du fi jóg bi ma ko joxee ba ñaanam ba ma jóg mu woowaat ma ma ñëw mu ni andi ñu mandargaal ko ndax kat yi daa bëri tamponné ci signé ci bind ci Mouhamadou Mourtada Ibnu Khadim Rasoul ñun moom lii ñu fi wax lépp amut amut genn kàddu gu ci mooy li nga xam ni liggéey nañu ko li nga xam ne sunu borom dimbali nañu ci li ñu fi wax lépp mu di ci sax ak toq ndax noonu li am na ci loo xam ne noo ko xamal suñu bopp te duñ ko wax bis peñ ci rek am na ci loo xam ne noo ko xamal suñu bopp te duñ ko wax Sëriñ Saliou damaa gént toog ba quatre heures ma gént mu taxaw tim ma sol lu weex kolu ne ma jàngal ma ne ma ne ma la ma la waxoon di defoo ko ma ne ma ne kon loo ma waxoon mun dama laa waxoon nga jàngal ma ab kaamil ma ne xifeet muy quatre heures nangam ma commencé kaamil ba neca neca neca bu julli fajar mu julli neca ba euh, ndékki jot ma def yëfi mbusoo bi ma nekk ca nekk ca ba ay onze heures ma àggal bi ma bi ma waajee nag dem julli ji ba mu julli ba noppi ma ne naa fa àgg wax ko ko ba mu yàgg ma ne naa ñibbi ba mu yàgg ma ne ginnaaw la ma loon ak Sall Jaxate naa leen jot ba noppi ba mu yàgg ma ne naa dem rek bi ma waaxoo ba dugg ca ca kër ga fekkuma kenn ca kër ga koy siyaare moom mel na moom laa fekk mu toog ci ab lal ay jàmbu jóob wër ko te jàmbu jóob yooyee ko wër man mii la sëñ Sidi Muxtaar joxoon ni ma demal yitiko oh. mu kolo jàllin ba mu ko rawoon sol sol dara jëm soloon wul na ma tax ku taxaw ak ku toog daal mooy wuteel bi ma yegg si nuyu ko fekk fa ku ñuy wax góor a jóg ma ne ko man day nuyoo ba àggal mu lu doonoon tànk yi man ko biig daa am géntu ma gént mun ma nu mu demee ne ko ay ay bi ma toogee bu mu guddi lool de damaa gént nga taxaw tiim ma sol lii nga sol koloo jàlla bi bii nga koloo da ngaa taxaw tiim ma waaye tey da ngaa toog loolu rek mooy wute ji mun ma loolu de du gént ah, ah, ah, kii wan la daal ni ma waxtu wu mu doon ma ko boobu de ñeenti waxtu xam naa teg na tuuti mu ne ma ne ko waaw mu ne man nu mu tëdd ne ko damaa ma ne ma la ma la waxoon de defoo ko la lu ma dama laa waxoon nga jàngal ma kaamil mu ne ma noo def nag ba mu ko defee ba ba nga yeewoo ma ne ko jàng kaamil ba mu ne ma ba mu àgg ne ko waaw mu daal ni ana Saliou Diakhaté ak ak ak ak ak góor a jóg daal ni sàlla sëñ Baara mii na ngeen xam ne am na tawféex ju amutub àpp tawféex nag li mu neex neex tawféex ju amul àpp moo ci dàq man tamit pour ci li muy wax may leen man li wax xaw ma xam naa dana xam la muy wax waaye man li wax xaw ma ko ngir bëgg ay seere Saal Jaxate dikkaat déglu mu wax ko Saal ne ma nee na am nga tawféex ju amutub àpp te tawféex li mu neex neex tawféex ju amutub àpp ci dàq moo tax yooyu sax juruta toog di ko kii bi yu noonu ndax li li li yàlla di wane nit ñi di ko gis melal nañ ma nangam defal nañ ma nangam say jëf ak ak ak ak say waxtu ak ak ak ak sa digganteeg nit ñi nunu ko bañ xam ni defal nañ la ko. résultat bi moo solo sax toog di ko nekk bi dafa tolloog nag comme li eh, Amalaad wax léegi rek dafa am dafa am ñoo xam moom. fañ ko wasal loolu du leen arrangé wu leen aw rëkk nga leen naan til bu ko defee ñu soog a xam li ngay wax lu mu doon mooy mooy xeeti wax yi ndax boole ay boole ay kobas ak yooyu bu seen yaram du yëg kobas aw aw rëkk wu saf nga leen wala nga kaata wala nga kaata li mooy tax ñu xam ñu dégg wax waaw moo tax nga di ñu dégg li nga wax daanaka moo tax ma mosule ma mosule ci yii ma ci jot a mosule waaye jotaay bi jotaayu cant la ak ak ak ak ngërëm kese ginnaaw buñ sottee sëriñ Cheikh Aliou ci toogaay bu rafet bii sëriñ Baara noonu la ko fi defee ci suba sëriñ Ama Aliou yàlla na ko yàlla yërëm ñuy sàkku kenn ku ne fa nga toog nga jàng fukki lexlaas ak benn jox ko sëñ Ama Aliou ak bi ndax bis bii noog moom noo ko daan bokk ba yàlla dogal lii tey kon nag kenn ku nekk na jàng fukki lexlaas ak benn jox leen ko addiya ndax ndax ndax lu leen ma a jëfal ci adduna lu mu bari bari lu at ya bari bari defal leen lii moo moo koy ëpp doole ci ñoom ndax soxla nañ ko di nuyu mboolem waa dëkk bi di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo daayira bi ndax daayira bi kat li sëñ Moustapha wax léegi doy na sëkk daanaka jërut jooju wax ñu di ci demaat ndax ba fi sëñ Ahmad jógee du tey waaye fii ñu teg seen tànk amuñu doole de waaye borom doole yóbbuwu leen yóbbulu leen dara ndax li tax borom doole yóbbuwu leen dara innamal ahmaalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa fa hijratuhu ilallahi wa rasuli borom doole yóbbulu leen dara yéene sax booy xool am na yéene yoo xam ne moo moo moo moo ëpp fay yenn façon jëf yi am na façon jëf yoo xam ne yéene moo ko ëpp fay te ñoom li ñu boole mooy yéene ak di jëf ndax lu mu doon lu nekk ña ko téye buñ ko yërëmalul bis bu nekk ñu jàpp ne tey ji lañ war a téye jënd bu fenk ñu jàpp ne lu ca yàqu ñoo ko yàq loola lay jëm te ñoom ñëpp du ma wax nañ leen sañ xam ma bàyyi woon lañ teg seen tànk du ma wax du ma wax loolu damay wax ne teg nañ fukki tànk gannaaw boobaa léegi ndax sëñ Tuubaa moo bindoo ni amul tànk gannaaw tànk kanam la ak loo boo ko jiitee loo doon doon jàmbaar boo demee ku la wut def fi loo defut ndax loolu mooy wane ni sëñ tubaa amul tànk gannaaw ak loo doon doon jàmbaar foo toogal sëñ tubaa bu jóge fa waxuma ay xalifa kese ak fu mu doon rek boo ko doon jiital ci jumaa ba jóge fa sax dañ fa wutu koo xam ne dañ naan moo lépp xam-xam la gën a sax wala moo la nang wala nangam ak nangam loolu lépp li ci yàlla jublu wane ni sëñ tubaa amul morom kon ñu di leen sant bu baax cant goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem di ko teg ci loxo si Cheikh Lo nga xam ne moo jiitu ci seen kanam mu tasaare ko ci ñoom ñëpp lenn day luñ mas a loo xam ne daa jëm ci liggéeyu sëñ tubaa yi du ma wax sëñ baara liggéey sëñ tubaa laa wax luñ ca mas a loo xam ni yëgal nañ ma ko ma war caa dox mbaa ma war caa wax kenn man leen ca amul leneen loo xam ne yëgal luñ ma ko itam tañ jàpp ni ko loolal yëfi sëñ tubaa war nañ caa dem ku ko mën ci ñoom da nga jóg dem ca tala la ca war diñ ko def kon nag sama sama sama cant sama ngërëm ci daayira bi maa ngi koy seere ñëpp la ma leen waxoon itam tey jii laa gën a wax ku yor ay doomi jàmbur say doom taxut kenn di wax amut kenn koo xam ne sëñ Axma moo la meññ nga nekk nga nekk ci loxo kenn koo xam ne bawuma la fa wala man maa la ci benn responsabilité na ndax ndax yàlla dimbal li ma tëlewuma tëlewuma ko ci genn waaw euh, te te te am na ci loo xam ne daal moom sax jëf wax jëf daal moo gën jëf moo gën a wóor ndax buñ buñ yàlla noo noo fi bokk di dund lu ma taxaw fii wax ko te ëllëg jëf jënu réewul ak moom it nit ñi daañ ko xam im ndarim dañ naan cell ne im ndarim rek mhm. waaw bu ma ko jëfee ñu gis ko rek moo gën a wóor bañ di ko waxal seen bopp moo gën a wóor xam naa li may xam ni yéene naa ko ci mu jëmmam ja daal ca fa mu tëdd yéene ko ci ak njabootam yàlla suñu borom moom xam na ko te jàpp naa ni dana ma ci dimbali ndax li weesoogun moo ëpp te dimbali na ma ci ndax xam naa ne mënatumaa dund lu toll ni li ma dundoon ah te te te te te lii ma weesu li ma bëggoon ci ñoom ci li ma weesu yàlla defal na ma ko kon nag yaakaar naa ni eh, ñun ñoo ci des damay faral di wax ni xawma kenn de man bu ma yàlla moomoon fu fu ma yàlla fekk moom ma fa su ma àggee maay am gàcce waaye yàlla li ma mën a lépp def defal na ma ko moo tax lu ma am muy jéem di ko delloo suñu borom di jéem di ko seq ak ñun ci ci fànn yëpp nag ndax li ma yàlla defal dama koo yëg ndax kat alxuraan dafa wax ne boo boo leen sante ma dolli leen bu ma leen mayee te santu leen da ngeen a te su ngeen weddee dana leen buggal la in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna asabi la sadir bu ngeen santee ma dolli leen leen mayee santu leen da ngeen a weddi te ku ci weddi dinaa leen buggal waaye nag wolof Njaay day wax ne loo gis rek daa am sabab Baara Ndiaye mii wax na ko léegi ñun fu ñu toog sant fa mbaa ñu gërëm fa mbaa ñu ñaan fa war nañoo ñaanal suñu ndey ndax Baara mii newoon ca daara ja nekk fa ak ñun ñuy ci kanamam mu am mu am fanweeraat ak nangam ca ja ci suñ kanam ci ci ci kanamam dafa naa lim jot a seere fii kon suñ nee war nañoo gërëm suñu ndey te war nañoo ñaanal suñu ndey kon loola ñëpp xam ni lu lu lu war a am la ndax jotaay bii su suñ ndayee ko liggéey de bu yemoon ci man dong kon lu jóge feneen la waaye lii ma am sëñ Ahmad lim am ma am ma am ko ah Cheikh Mbacke lu ko raw la amoon keneen lu ko raw la amoon te lépp liggéeyub soxna su génn ko kon nag nee su koo fàtte dafa am kàddu yu baara yaay doon wax léegi xamut sax fa ko alxuraan wax da ko xool mu jub mu wax ko rek dañuy jiw bu baax suuf su baax ndox mu doy gàncax gu rafet alxuraan moom noonu la ko waxee wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi wallazi xabusa laa yaxruju illa nakida moom la Baara Jaay wax léegi jiw jiw bu baax suuf su baax jiw bu baax ndox mu doy gàncax gu rafet erreur yoo gis mu koy indi yëpp mooy mooy wut jiw bu baaxut puudaroo ko def ko ci suuf su def def ko ci suuf su baaxut tooyut doo am gàncax mooy lii xew léegi nag waaw lii xew léegi nii moom la fu la neex wutee ci soxna koo dox ba dayeeg moom jël yóbbu xamoo fu mu jógee xamoo kum doon xamoo ba xam euh, doom bi aw sax doomu gerte bi aw saxaar ngi ci biir wala déet xamoo daa kojj wala kojj wala ci lëndam daal nga ko gis boo ko yéeyee ba mu saf li mu saf rek ci nga xamee ne sa doomu gerte bi baax mooy li xew léegi te dañ cey waxuma la nag bu ñu yem foofu dañ cey duñ yem foofu duñ yem foofu dañ cey boole dañ cey boole di di di di dañ cey boole di sol tubay yoo xam ne bu jot leen jiit loo tilim ba mu kub tubay ji di summeeku démb damaa ay kéeméer damay wër ci essence ma gis ngóor soo xam ne ba mu sëggee tubay ji daa summeeku ba ñëw ci wóom yi ma taxaw ki may solee essence na ko waa yow sëñ bi loo jublu ci lii mun ma daa xew man kon de la bon xew te su way gisum ni ko ba ci wóom bi <laughs> ma ne ko mën ma daa xew ma ne ko kon lu bon xew yaram mu neen kay bu xew ñu <laughs> koy ñu ñu ñuy jeexale nag ñuy comme mi ngi guddi comme comme guddi ñu koy jeexale ci ci ci Moustapha mii ci li wax léegi ñun moom bu dëkk woon ci dañu def lu neexul dëkk ci di ko wax bañ a mel ni ñu ko yàlla melal nga xam ne noonu lañ bëgg mu mel ne yàlla melal ko na mu mel ni du tee nu téye ko bu dee neex nu téye ko bu dee naqar nu téye ko bu dee métti nu téye ko kon nag nii ko yàlla melal mu yem ca nun ba pare ni mu bëggoon mu mel ne mu mel nu ko raw loolu ak sant yàlla la ci mën loolu lépp yàlla nu ko defal ndimbal te yemul ci moom moo ko rakkam yëpp nag góor ak jigéen tamit Mbàkke mais boo dajee moom ci mbedd doo jàpp ne sama dooma da nga naan sama moroom Cheikh Aliou mii ci gën a tudd noonu keneen noonu te loolu dara def ko ñun bëgg guñ ma bëgg ndax nit ku nit la bëgg boo jàkkaarloo moom rek da xam ne kii bëgg na waaw te loolu kenn amu ci looy kenn amu ci looy looy looy xalaat ma man daal mënewuma di wax ci sama bopp wala may wax ci sama ñoom man mënewuma loolu jëf jëf ci ñoom ku ci teg sa bët xam ni maa jëf lii man loolu moo ma gënal jëf ci ñoom ku ci teg sa bët xam ne maa jëf lii loolu moom gën Axma Sow mii li mu fi wax léegi kasaalik lu mu mën a wax ci nun nun ñu gis ko xam ni fii lay jógee daw topp ci moom moo nu gënal fuuf mu toog di wax leen na ci noonu te itam nit ku nekk nag sëñ sëñ sëñ Lahat dafa waxoon ni dañoo dafa amoon ku ku doon daan am kuy ceekaw ni man kenn mënut a wax lu ma daanee sëñ Lahat ne ko ku yëgut daan ñu jàng xasaayid sëñ Tuubaa yi waaj a daanu am Quran man de fi ne nii xasaayid mu ne suma ci wax lu ma daan ak alxuraan ak man daal lu waaye mën a wax damay toog di la xool sëñ bi ne ko wax dëgg yéegul rek ku yéegul doo daan waaw ku yéegul doo daan waaye nit ki lu mu yëg ci xolam tamit dëgg feeg génnewu ko ci boppam rek doo amum féex mooy lii daal mooy mooy lii daal ahmala waaw te nag bu ko doon wax te nuróowul ak ay jëfam tamit dama koy weddi fii mu toog bu ko waxoon mu dawul ak jëfan dama ko weddi fii mu toog nanga wata bee mu war su ma ko doon daa ko bëgg du ko yóbbuwaat Ndakaar barke sëñ Tuubaa barke sëñ Baara bu ma waxoon ne ko wata bee daa ko bëgg du ma ko yóbbuwaat Ndakaar ndax ko ne bëgg naa nangam te loola ñaaram dikkul ci man waxuma la benn su ma ko su ma ko nee nangam indi ko danaan ma li gën a gaaw mooy li mu jar boo ko nee nangam mu jox la ñaari loolu léeg-léeg maa ko naan bul ma jox indi li ma la mu soog a dem wuti ko indi wax nag mooy indi wax ndax bu jógee wax rek te kenn xamul lu tax muy wax li tax muy wax daa war a leer nit ñi waaw sama doom ni man la ko baayam joxoon ba mu ba mu fereem soow maa ko yor ci sama kër ba mu xëy dem ak boppam kon la mu wax du caagi nag jëpp lu ci man moo tax mu ne lu na ca moom mën a déedéet maa ko yar sama biir kër ci njogomaay ba bañ ma koy jox uma biñ ma koy jox aw ma soxna kon lii muy wax nii daa war a leer ci boppi nit ñi ni du jébbul rek a tax muy wax loolu wala luñ fortaatoo la wala nangam yooyu de tey nag sëñ baara moom li mu yor da koy joxe dong du jeex ku ko sàkku tamit dëgg ci yow sëñ baara def jox la ko koo ci gis mu mu mu mu mu fël dem ñu mu def nii daa am fël la dong xëcc fu rëy rek waaw sëñ siid moo tax daal wax na dama daan wax ne saa booy xëcc bul xëcc ci bul xëcc lu tuuti xëccal loo xam ne nga jàpp na bu dalee sa kaw nga ànd ak moom daanu yàllaa la koy téye waaw sëñ si loolu la ma daan wax nee na booy xëcc xëccal loo xam ne da nga daan buy daanu nooy ànd daanu waaye nee bu bu bu waree daanu yàllaa la koy téye kon ñoo koy sant bu baax di ko seere mboole bi di seere di sant sëñ Moxtaar si lépp ñi tam suñu jarbaat wax dëgg yàlla ñu daje ci fu fu bari hmm. kenn du tagg sa bopp nag hmm. wante nag àll bu tënawee mat ñu ne ah àll bi waroon na am matt te amu ko moo tax ñi ñi ñi àll bi am matt ñu dëkk ko nawe lii mu def suma jarbaata war na ko ñëw na fi def na ko kon déetu ko déet ah kay am na jarbaat yu ko defut kon war nañ ko cee sant war nañ ko cee gërëm di gërëm jàngkat yi wax dëgg yàlla fu ñu dem fekk nañ leen fa ngeen di jàng waaw Fallou Ndoye mii kasaalika bëggunu bañ fàllu ndooy mi bëggunu ba ñëpp xam ne dañoo bëgg moo xaadim bi bu mu woote woon ca kaw asamaan sa def fu ñu fu ñu jaar ba yëg lañu la ñu xool ñoom waaye mënu su faa dem seenu làmmiñ du ko wax ba sëñ Muntaxa xam ne dañ noo bëgg dañoo bëgg dañ noo bëgg loolu itam buñ fokk ñu du ko seere mbooloo mbenn jum mais dégg ngeen li wax léegi mbooloo day toog mu dem ci barab ñu war koo jox joxuñu ko mu ne leen gannaaw gannaaw suñ baara joxuma ko rek mun naa ko te ñibbi du benn du ñaar. waaw. nga xam ne mbëggeel moo ko indi fii tey ñu fi toog ñëpp mbëggeel moo leen fi andi li nga xam ne yéene naa koo wax daal ci jitaay bi wax dëgg yàlla sama xol sedd na ba du ma ca mën a àgg te itam xam naa ne toogaay bi yàgg na te guddi na itam bi ma bi ma bi ma ñaar yi ma sëñ Muntaxa mujj wax nag bii màggalu Tuubaa bii ci gàmm gi moom damaa bëgg ñëpp dugg ci. màggalu Tuubaa bu ma demee bay tàggoog moom ci bisu màggal ga dafa woo mbooloo ngi toog mu ne ma na yëg ni am nga ngërëmul sëñ Tuubaa man nag bëgg naa ñii dugg ci amiin boobu boobu la ma wax bisu màggal Tuubaa bisu gàmma bi ma yebalee ci kilifa diine yi ma wëree wër ba jeexal ba ñëw ba ma demee bay tàggoog moom ne ko ñaaral ma def na jàpp naa bis ni ko tey ni daal sama mbir ak yow sëñ Tuubaa laa ko bàyyee waaye dugalatuma ci kenn gàmmu gi passé ci loolu la ñu jotaat ko loolu nag sant yàlla rek waaw sant yàlla te def ko ab soññee ko defee bu ñu jógee ci loolu nag ngeen góor góorgóorlu rek ci jaamu yàlla lu ci liggéey góor góor lu ci booloo nekk benn góor góorgóorlu ci sax ci ak njub tey wax dëgg nag surtout wax dëgg ndax li ëpp ci nit ñi sawara boo fa demoon lépp ci nit ñi seenu làmmiñ ak soxna si jàmbur moo leen fa yóbbu li ëpp ci ñi dem sawara soxna si jàmbur ak seenu làmmiñ boo demee ci ñi lépp ci ñi dem sawara loolu moo leen fa yóbbu kon nag ñu góor góorgóorlu boo saxee ci njub rek lu la seen sax dalay ragal boo ragalee yàlla lu la seen dalay daw gaynde bu ngeen doon daje ci mbedd tam nga ragal yàlla tamit dëgg boo ne yurub ci mbedd mu ne yurub ci mbedd mi day jàdd seeti meneen mbedd wa taqoollah wa yuallimukumullah boo ragalee yàlla yàlla dina la xamal te ku yàlla xamal lu la seen daw la lu leen lore lu la seen da lay daw kon nag ñu lu ci njub góorgóorlu ci nag ci bañ a bañ a bañ teg sëñ bi di teg dara bañ a déglu waxi kenn itam ci lenn ci sëñ bi moom ne ci fa ngay nekk nekk ci fa ngay nekk rek ndax ku la ci bëgg a génne ku ne am na lu fii ne nii boo demee soxna am ko colonisé ci kër ga mu duggee ci kër ga mu ngalaab ko war di dawal te munu ca dara mu bëgg ko ci xolam ba nga xam bu ne wóor rek mu samp xelam kon nag moom bu ku bëgg téye nga bëgg sëñ bi lànkal ndax moom am na lu mu bëgg te man ko téye ku ne ku ne am na loo téye am na lu la yàlla nattoo sëñ bi la nu yàlla nattoo ko nangul nañ ma nangul yàlla mu sëñ bi ñoom bu leen yàlla nattoo xaj ca seeni kër wala seeni soxna wala seeni alal wala seeni doom acca nañ dem ñun nañ ñu bàyyi yàlla na toonu sëñ bi nañ ñu bàyyi yàlla na toonu sëñ bi ndax ku yàlla woomatal lu musta woomatal kenn te dootu ko woomatal kenn ku ko yàlla nattoo war ngaa sant yàlla kon ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi leen dénk daal sax ci ak njub tey lekk lu lew lii daal bu ngeen ci saxee mën ngeen a mucc ci lu bari bu ngeen nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla topp ci ndigali sëñ bi sax ci njub di lekk lu lew te wax dëgg mën ngeen a ci yu bari yooyu nag fi nekk nii gis ku ko boo tegoonub coupe ni ni ni ni ku ko ku ci nekk yaay jël coupe bi man la ñu njëkk a disqualifié loolu ma lim noonu daje dem dem ñu ne ñu teg coupe bi ñu ku ne ci yéen ñi jot ci coupe bi waaw ñu ñu ñuy jël coupe bi duñ bari de te loolu nag mooy dara ngeen sax ci njub na ngeen sax ci njub na ngeen di wax dëgg ndax yàllaa wax ni bis dina ñëw boo xam ne lu dul dëgg du fa am jëriñ te bis boobee képp ku yaakaar dana la may na ngay nax si bopp lu mooyul sëñ Touba mooyul yonente bi mooyul sëñ Mourou Moustapha mooyul sëñ Baara mooyul El Hadj Malick mooyul Baye Niass mooyul keneen ak keneen mooyul Saaba ya mooyul mooyul Omar mooyul Aliou mooyul Ousmane ku ku yaakaar naa la mooy rek da ngay nax sa bopp kenn ku ne am nga sa bis te da nga wéet ba defe ne yow dong la yàlla bind. ku ne am nga sa bis te koo wax mu ne mu ne sëñ Touba la yaakaar sëñ tubaa jàmbar sëñ Touba naa loolu bu dee bu fekkee dëgg la da teg sa tànk fi ko sëñ Touba tegoon bu fekkee dëgg la teg sa tànk fi ko sëñ Touba tegoon te yéen yi xam ne ay ndaw ngeen toll ci buntu adduna te añu la jur sëñ Touba de boo mosaan dikk jox ko jox ko sa bopp da lay laaj nee na nee na da toog wala da dem nga ne damay toog. mu ne ndax sama juróom nga fa nga ne waaw mu ne boo toogee loolu ci jublu nga ne ko pour liggéey mu ne dellul ca say waajur liggéey li ma ca ñoom loo fa def mën nga ko defal ndax say waajur nga fa da ngay toog nga ne waaw ndax say waajur nga fa nga déedéet mu ne waa ah, kon toogal loolu loolu mat loolu ñu bàyyi ko xel bu baax te alxuraan moo moo ko jëkk tudd kon nag loolu mun lay lépp lu ñu am lii bu ko suñu waajur liggéeyee suñu laat moom gont nañ ci moom te koo xam-xam nu danga xam ne gont na duñ digle mukk nag nun eh, jomb nan rus nan di digle loo xam ne jaaruñu ca jàll ba am résultat wala nekk nañ ca ba ñëpp gisuñu ñu ca ba xam ne am nañ ca résultat nun duñ naan diw làmbal ba xam taal bi tàng na nun duñ ko wax benn taal bi dañ cee dugal suñu loxo ba mu lakk nu wala nu xam ne ab dóom la ñu soog naan la làmbal ba xam waaye jël baaraabu jàmbur di ko làmbe mbaa ñu ko seete non ñun loolu duñ ko def taalibe Sëñ Tuubaa yi xalaatuñ ko sax luñ ci digal nit kay dañu jiitu ca sa kanam ci xam ne lenn lay boo ko laa am am na pas-pas boo xam ne buñ ko xamee ci yow mën na noo ñàkk loola te yow nga am ko mën na noo jël benn bi ñu yor jox la te nun nun waaye nag du kun gis def la ko de du tey nag kuy wëndeelu nii rek naan sëñ bi nangam ak nangam daade nun suñ jëf du dem foofu nun fa fa dem dana nu wóor ni fii muy dugg nii suñ borom mënu ko fa mu gudd mu gàtt daal sax leen ci jaamu yàlla sax leen ci njub sax leen ci booloo nekk benn sax leen ci di lekk lu te dee leen wax dëgg surtout sax dee leen wax man sama wax jëpp foofu lay jëm ndax téeméeri nit yoo wàññi daanaka fi ñu toll nii juróom-ñeent fukki luñ la wax rek inañ ndari kon geen jërëjëf ñoo ngi ñaan yàlla ko fi teew kon jërë ngeen jëf ñoo ngi ñaan yàlla ku fi teew yàlla nañ fi teew déwén ci doole sëñ Ba ci doole Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ne mooy borom dëkk bi ci doole Sëriñ Touba mi nga xam ne moo leen boole mel bi may jeexale nag mooy suba sëñ Moustapha bu sëñ Sidi Mokhtar sant sëñ Mourou Baara moom sëñ Abdoulaye nga xam ne mooy suñu buntu ci kër sëñ Abdoulaye am ndëkk ca Touba Tawfekh incha allahu oto bi dana ñëw fii dana taxaw fa Touba bëgguñu nag la leen daloon daaw la daloon ñenn ñi daaw ñu nit sax bokku leen ca loola ndax teel ngeen a dem daaw waaye daaw daa am ñoo xam ne bi ñu tolloo euh, mesare di ñëw lañ leen di njëkk ma yegg na ñu wàññi loolu dam ngeen bàyyi ko xel teel a jóg ndaxte kat sëñ Moussa am na lu ko déq sëñ Modou Bara am na lu ko déq nañ xaalis bu ñu fayee ñu déq koy waaye ñoom bëgg nañ fu waay nekk ñaqal sëñ Touba ndax sëñ Sidi Moutar moom mu wax ne ma sëñ Touba li mu yor dara luy maye nekku ci lu ma la ci yéene yéene lu ma la jur jur te bëgg nga am ci feeg mayu mayu maye lu ma la ci sama feeg liggéeyoo ci ba ma fay la ko doo ci am daal daal ne ma daaw dafa am benn bis ca Mbàkke Baari ku ñu wax Mbay Géey ab sëtam moo barabu sëñ Baari bi mbokkum mbokkum euh, mbay ñii léegi am ko mu joteel doo nga bu mu joteel ca tool ya donga ba jiitu si ko Mbàkke Baari ñëw ni sëñ Baari diinde def na ma naa nga ma ne mbay gi yegg si rek sëñ Baari na ko ey mbay dinaa nangu li ma liggéeyaloon mbay gi na ko mënoo ko mu daal di waax ba ci digg naajo xool jant bi xool ko xool ko ba mu mu dikkaat toog mbay li nga ma wax sama borom laa doon ba xam loolu mën naa mën naa nekk wala waaye na ma li nee na ma ñàkk borom rek sëñ Sidi Moutaara mu nekk daal di mu man mu man liggéeyal ñu sàngam ci kër Nganda ndax bëgg gi ma bëgg ak topp gi topp bëgg naa nga añ te mënuma laa añal te liggéeyal waa ma li may defal lépp liggéey la waaye liggéey bi ma bari yow doomu mu sol ñàkk naa bëgg ndax dama bëgg fi nit di yegg nga yegg kon nag ñoom ñi mu yegg fi nit ñi yegg lañ jublu ci noonu ci dum liggéeyloo moo tax sëriñ bi sase toolam yi muy sase kon nag ngeen am ci pas-pas bu baax cant moom du weesu cant xam naa des na tuuti sax moom bu ma fi ñëwatee du ma wax Moustapha moom lu ñu fi wax moo ko fi wax waaye man des na tuuti bu ma fi ñëwatee jëf laay feetu ma waaye du doon ay wax asalaamaaleykum ya rabbana fa kun lana wa jih lana lutfan wa amnan ya aat ya man taala lam yakun kufan aat